ñu bëri nag ñoo ngi toog di naan kii di sasaa dafa réew mais nag est-ce que sama gars yi ñëpp nag loolu la ñuy xalaat moo tax nag képp ko xalaat kii di Sacha dafa réew rek dóor ko ci commentaire yi nga expliquer pourquoi Sacha dafa réew man nag dama ko comprendre si benn situation dama ko comprendre si benn côté que ni c'est normal mu gis ku mu bëgg que ni carrément moom ko la bëgg te kooku la bëgg a sëyal il est normal nag parent mi bañ koo accepté li nga xamante ni moom la bëgg ndax soo xoolee benn doom kese la te tamit benn doom dafa sax si xool moo tax sama gars yi li nga xamante moo nekk parent wu sasaay bëgguñ koo maye si li nga xamante ne dalul seen xel loolu rek moo nekk cause euh, li waral ñu bëgg koo def mariage forcé bëgg koo may nag ki nga xamante ne ko moo dal seen xel mais nag sama gars yi nan ngeen gisee comportement wu parents yi tamit nan nga gisee comportement wu ki nga xam te moo nekk Sacha ndax ñoom ñaar kan moo si nekk si dëgg kan moo si nekk nag euh, si lu tegu yoon ndax man nag euh, kii di Sacha la àndal àndu mag li nga xam te moo nekk parents yi ndax euh, balaa ngay juger nit ki ndax ñoom dañaa juger Paco juger boo xamante ne juger bu doy waar la que ni carrément Paco de moom nekkul géer bi nga xamante ne ñoom lañ soxla de kii di Paco dafa yor benn caractère bu bizarre ñoom loolu moo leen di déranger si nga xamante moo nekk Paco mais nag sama gars yi kii di nag Papaye Sacha dafa wax lu leer que ni carrément Euh, bugul génn nak tradition bugul wacc nak tradition yi ñu naan mom mi lay euh, papa yi sasa mom mo dal di euh, commencer bobu lay phénomène les gars côté bobu noonu dama ko ci comprendre mais nak benen côté il est temps nak walum waaso yi jeex rew mi ndax lool nonu amul ben sens amul ben solo ndax so xolé nak trois personnes yi di and muy ki di dudu xassa ak pako ñu ngi fi wax wax bu am importance que ni carrément walum waaso diñ ko nak wara jëlé mim rew les gars sénégal kessé ngay gis ku wax loo noonu naan kii géwél la kii géer la duma ko may kii nangam ak nangam moo tax nag il est temps ñu daal di xeexlu ba mu jug si réew mi te tamit benn côté waa bete bete nag dinaa nekk di gée noonu pour daal di enlever totalement li nga xamante ne moo nekk wàllum waaso te xam nañ ni loolu amul benn njëriñ te nag Sénégal diñ koy gën a fësal alors que ñooy gën di egg benn monde boo xamante ne amatul sens naan kii géwél la kii géer la ndax ñi nga xamante ñoo ko fi tegoon nekkatuñ fi comme nag euh, il est temps ñu ko ndax suñ ko changé duñu yàqal dara te tamit loolu noonu yàlla mësu koo bind fenn les gars one love di leen wax dig daje ba beneen vidéo jaa ngeen jëf